asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah deux mille décembre 2019 ñu ñëw ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la Leewtoo point net record ba ci l'observateur tey moom xibaar bi benn la ñépp xëy tey ñëwandoo ci muy ki nga xam ne nii moo di Papa boo xam ne daal dàq nañ ko nag léegi fa nga xam ne moo di ca écurie Fass yëpp xëy nañ ci ñëw bu dee sunu làmb la moom lam ñu xamal ne na Papa Sow moom démb daal la jot boobu xibaar lañ ko notifié kayit gi koy wan ne daal dàq nañ ko ci écurie ba loola itam bañ ko defee waa Fass yëgal tañ ko ñi nga xam ne ñoom ñoo yilif làmb ji muy waa CNC bi nga ne ñoo yore làmb ji xamal nañ leen ne daal li leer ba leer Papa moom dàq nañ ko fi nga xam ne moo di écurie Fass yëglekaay bi nga xam ne mu di record tamit ñëw na ci loolu xamal ñu ko xamal ñu ne daal li leer ba leer moom papa moom léegi dàq nañ ko fa nga xam ne moo di faas ba tey l'observateur tamit nee na léegi nag leer na divorce am na maanaam sëy ba tas na fi mu nekk nii ci diggante Fass ak Papa Sow Leewtoo point net moom lam ñu xamal mooy li leer ba leer daal Papa Sow daal léegi kon wax a seetut piment de Fass waaye weneen tur boob la ñuy wëri waaye la ca des la leer daal mooy écrit ba moom jóge na ca la ko gën a indi nag xamal nañ ñu ne daal la nga xam ne moo doon kayit boo xam ne écrit ba da ko signé jox ko mbër yépp ne leen yóbbu leen ko 48 heures wala 24 heures ngeen liir ko la ca nekk. ngeen signé ko ndax ay sart la ñu leen tegal ku ko mënut ñu génne l'écrit bi loola nag daa mel ni daal moo indi sëy ba tas ci diggante Papa Sow ak faas ndax papa moom loola dafa mel ni àndu ca ak ñoom wala bokk am na ca point yoo xam ne d'accordu ca moo tax itam nag waa écrit ba kon ne comme loolu nanguwu ko moom te ñoom lii duñ kon maanaam may kenn kon moom dañ koy dàq ci écrit bi loola waral dàq ga yëglikaay yi ñoo def boobu gëstu xëy tey wax nu ko waaye leneen loo xam ne gis nañ ko wala ñaar ñoo xam ne moom fi mu nekk nii seenub diggante li leer ba leer daal daa mel ni ku bëgg fa mu fanaan la ak ku bëgg ku ko wet li muy diggante Balla gay numéro 2 ak ki nga xam ne moo di booy Niang kon ka ñuy xaar ku leen dugal ca néeg ba te tëjal leen bunt ba mu mel ni kii nag ñoom ñaar fi mu nekk nii booy ñan moom la mu xam ne daal ne na bu doon biir Amadou Bari stade ba ca Géejawaay ma fekk fa Balla gay numéro 2 ñu bëre maa moom ma jàmmaarloog moom Balla ca jamono jooju tamit ne na ko li leer ba leer daal jàppal ne man moom pare naa mu mel ni ki kon loolu moom fi mu nekk nii coow la tamit juddu na fa ñeneen ñaar ñoo xam ne moom seenum combat pare na ba ñu war koo bëri muy diggante Ama Balde ak ka nga xam ne moo di Modou Lo le des arènes ba ca parcelle mu mel ni ki nag ki nga xam ne ni daal moo di Ama moom yëglikaay bi mu ngi ñuy xamal ne day moom fa mu choisir wala fa mu tànn ngir def fa li nga xam ne nii moom moo di ay entrainement moo di ca France sunu làmb moo nu wax lu mel ni ki noonu waaye ba tey combat booba dañu cay des ndax nag record dafa xëy ñëw tey def ci jàngat bu yaatoo yaatoo yaatu ci xalima ak abu mu mel ni ki nag combat royal ba daal nam ko tuddee mooy loo xam ne dafa déséquilibré maanaam daal tolloowuñu bii daa sut bii bee sut ba ca des loolu nag yëglikaay bi la tax mu wax wala jàngat bi mooy ne na boo xoolee ci wàllum palmarès ñoom ñaar wute nañ ca lool ndax Modou moom mu ngi ci ay vingt-quatre combats yoo xam ne ni jongante na ko am na ca lu tolloog ñaar fukki ndam soo bëggee dégg-dégg wala waaw yëglikaay bi daal loolu la ñu wax wala boog ñaar fukk ak benn waaye leneen loo xam ne tamit ñëw na ca mooy Ama boo xoolee moom quinze combats la jot a def am ca lu tolloog li nga xam ne nii moom moo di treize victoire mel ni ki daal ko kon ñoom ñaar seenu différence moom soree na lool lool lool Modou moom boo xoolee ay kombaam daal bari na ba yegg ci lool waaye Ama daal boo bëggee dégg dëgg daal yëglikaay bi na ñoom ñaar moom boo leen jëlee teg leen ah daje nañu war a bëre waaye boo xoolee daal moom tolloo moom amut ci seenu diggante ci wàllum palmarès loolu nag du samay wax yëglikaay bi nga xam ne moo di record a ko wax ci xalima ka nga xam ne moo di abu nduur ke bëre moom ba pare di wax wala mu waroon a bëri te mujjul bëre mooy Baye Mandione wax na fa nga xam ne nii mooy ca Lutte TV wax na ca l'observateur fu ne wax na fa la mu xam ne nag bu dee ci Lutte nee na moom daal amoon nag yéeg-yéeg wala daal xamaloon nañ ko ne waa Gambie moom ak lu mën a xew sa combat bi nga fay bëri ji doo ko bëre ndax saboté ko la ñuy def yàq ko jaxase ko loolu mooy ka nga xam ne moo di Baye Mandione te xam ne ne ne ay we moom da koy rukoon sax yees koy daggaloo ak nangam ak i sàngam waaye la am yëpp daal ne na benn mbir la boo xam ne ñoom ñoo ko programmeel seen bopp def ko te ne na sax am na ay xibaar yu ko leer ne daal ña nga xam ne ñoo yor làmb ca Gàmbi balaa combat bi woo nañu xoyantaan waxtaan ak moom kon lii moom jàpp na ne mbir la moo xam ne lu ñu naanoon naaloon la fas ko ko yéenee xëpp bu ñëwee biir Gàmbi loolu mu ngi ko wax fa nga xam ne moo di ca Ligue TV waaye leneen loo xam ne ni moom dañ koy fekki ca Leewtoo TV muy ka nga xam ne nag moo di Abou digganteem ak Tafa Gueye dem ca stadium Iba Mar Diop la ñuy wax naan lii moom ku ko reewul ay bañ nga yorul waaye combat démb bi moom ku ko seetaan boo reewulee yaakaar na ne ay bëñ ngay yor ndax yoroo ay bëñ ndax la leer mooy mbër muy bëre di fecc Tafa Gueye de dem fecc na lu ne dugg na ca maintenant cong la cong abu ñaase cong ma sottiwul ba mu ca jógee nag ba nii songaatu ko ñuy wërwërloo abu di ko topp ñuy wërwërloo di wërwërloo ba làmb ja jeex cinq avertissement ñu ne ko Tafa Gueye moom nga am abu ñibbi waaye mu mel ni ki nag nag loola naqari na lool waa Lamsaar naqari na tamit ña abu àndal ndax dañoo jàpp ne Tapha Guèye 2 li mu def du yëfi nit te nit kuy bëre di mbër jël engagement jëlub xaalis war ngaa mën a taxaw dëggal sa bopp bëre loolu la waa Lamsaar dal di wax waaye leneen loo xam ne nii moom moo nar a am ci weekend bi muy ay làmb yu nar a méttee métt ba ca njëkk mooy diggante xeeru ngor ak boo yëmbal xeeru ngor numéro 2 Ousmane Diouf nag nekk fa nga xam ne mooy ca DTV wala RDV moom la mu xam le nee na li leer ba leer booy yëmbal moo ëpp technique ki nga xam ne nii moo di xeeru ngor waaye xeeru ngor nag ci côté xeex bi moom daa mel ni moom daa jàpp ne moo dàq xeex bu moo ko wax beneen combat boo xam ne tamit mooy Serigne Ndiaye numéro 2 ak ki nga xam ne nii moom moo di Libidor bu Kayaar mu mel ni ñoom itam seenub combat dimanche lay doon waaye li leer ba leer daal jàppal soog bu mu nar a méttee métti moom la ñuy gis soog dee luur daal la ko yëglikaay bi daal di tudde waaye am na koo xam ne ni moom la mu jàpp mooy Serigne Ndiaye 2 moom la jox ki nga xam ne ni moom la jox favori ba ka wax loola nag du kenn ku ki nga xam ne moo di booy kayre loola daal moom la gis waaye leneen loo xam ne daal mën nañ koo wax mooy li leer ba leer la amoon dem Essa Diom ba Mar Diop loo ci mën a dégg neexoon na ba yegg ci lool ndax nag dafa géy de dem combat ba mu bëre mook Abu Ñaase ku nekkoon ca stade ba yaakaar naa ne ree nga ba taqaajoo ndax la ñu gis démb yàgg maar jafe na ñu koy gis ci làmb mu doy a waar lool waaye li am solo te am solo mooy diggante Fass ak Papa Sow sëy ba tas na waaye li am solo daal na ñu jël rafetun démb indi ko teg ko ci tey ngir tàqalikoo bi nekk loo xam ne du ñaaw ndax nag xame mu ne su koo faxas te xamante am na relation am na jëflante bu rafet am na kon nag tey ku nekk boo demee ci sa côté itam lañ lay ñaanal ñun fa gën ci yow fa nga jóge neex lool ña nga bàyyi itam la ñu dese yal na gën ci ñoom loolu la ñuy wax ànd yëpp daal nan koy def rek te yàlla tax day am solo. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi nuyu di la ziar di la maasul tamit seen match nul démb bi. maa ngi lay delloo ziar di nuyu internautes yi di leen ziar di leen ñaanal jàmm non masawu kay boo koy def da koy def waa Camp Nou. moom jarul kenn dinu masaw ndax ñun yaakaar naa ñëpp dañ ne dem dañ rey waaw yàlla def ñu fara ñu bëgg ñu ñu war leen koo def far xaw ma arbitre ja xaw ma daal waaye lu ci mën a dégg daal nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di nuyu tamit supporteru Madrid yëpp waaw mais di nuyu supporteru Barça yi. <laughs> loolu am na solo Babacar ni ñëw nag si journaux yi nga xam ne wax tey làmb su mel sunu làmb record ak observateur ñoom ñëpp tey ñëw nañu si nga li nga xam ne moom mooy information du jour muy génnu euh, Papa Sow si écurie Fass Babacar. waaw génn wala ñu wala boog ñu génn ko écrit face parce que exclu lañ wax du mooy ku ñu génne. waaw exclu mooy ku ñu génne mais dafa am lu tax moom moo auto exclure boppam maanaam charte tegaloon pour mu signer ko pour mu respecter règlement intérieur écrit bi loolu la Papa Sow nangu tax nu nekk nag comme que moom signé wu ko moom moo bëgg a génn boppam face ñu yombal ko ko jox ko kayit bi ba nekk léegi dàq nañ ko biir écrit. ok waaw loolu kon lu leer naññ la kon ñoom daal seen i sart ñu tegoon moom dane du ko signé. su ma la déggee ñàkk kaa signé nag dañ ne woon ku ko signé wul ak koo mën a doon dañu la génne écrit bi moom signé wu ko moo tax ñu génne ko écrit bi waaw loolu moom ñun du doon lu ñu naan lu ñuy gënal parce que ama lu tax ànd bu yàgg la parce que defe naa ne du sax ànd comme li ñu ko xamee ci histoire Papa Sow Fass la juddoo te lii may wax ci papaam laa ko déggee Père Aliou Sow mu ne Papa la Fass la juddoo te effectivement la juddoo yaa ngi dégg kon diggante bi yàgg na lu jiitu loolu ndax diggante mbay Guèye la woon ak papaay Papa Sow ñu ñuy dund di dund tey ba ñoom ñoom ñooña ñoom ak njaboot ba njaboot googa am ay ay njaboot tey ñoom ñu am ay sët yaa ngi dégg kon yaakaar naa daal li may xam li may wax mooy donte kayit moo leen tàqale ci lu ci ay sart ba mu génne écrit ba wala ba ñu ba nangu ko ba ñu génn ko écrit man la ma leen di xamal mooy la rafetoon démb ci seen diggante nañu ko jël indi ko ci tey li ñagas pour fexe lépp rafet bàyyante bi pour man comme mënta ñàkk ba am na mais nañ ko rafetal parce que tamit àddina moo tëdde noonu ay nit bu ñu dee nekk di nekk ba dem ba xamante mënatuñoo nekk mën nañ tàqalikoo ci jàmm waaye la ma say bañ rek ñu tàqalikoo ba pare ku nekk taxaw sa côté di dóor sa morom xeer loolu du ko jar parce que lu métti métti ndey kumba suñ jote woon maa ngi yow tey xeex ba gaañante bis bis mën naa fàttaliku loo xam ne nii mas nga ma ko defal ci lu baax yow itam war nga ba mën a fàttaliku loo xam ne mas naa la ko defal lu baax loolu man naa ko muñu la nga ma def wala ma jégale la ko kon loolu man moom laa leen di jox comme ay xalaat di ko jox son bopp di ko jox képp ko xam ne tamit yaa ngi sigal parce que àddina mu solo te lii lépp day jeex lépp dañ ko fiy bàyyi ak lu mën a xew yëpp dañ ko fi bàyyi parce que làmb moom dafa am noo xam ne nag bu ñu tëddee itam li gën mooy ku nekk toog sa côté parce que li tax mooy am na seetlu boo xam ne ñëpp def nañ ko mooy que ni diggante Papa Sow ak ni mu meloon ay at a melatu ni te làmb la làmb nag dafa am lu mu laaj am lu mu bëgg am lu mu bëggal heure yi suñu demee nag bu wulunteetuñu wala mënatuñoo nekk li gën mooy ñu tàqalikoo si jàmm mais li may wax daal tàqalikoo boo gis nañu jël la rafet indi ko ci teg ko ci pour que moom mën a bañ a ñaaw ñu balonte ak Papa Sow fa mu nekk yàlla defal ko fa jàmm mu jik ko écrit face ga mu génne tamit yàlla defal leen jàmm ñu continuer ca la ñu nekkoon bu ko defee jàmm ne ñooy man daal loolu laa leen di wax. Papa Sow fu ma ko gisal Papa xam nga fi mu nekk nii tey at yi ko dese ci làmb bareetul Papa beneen bi ci des amatul lu muy prouvé ci làmb ndax carrière boo nekkee di mëne sa carrière lu bëgg a mat 20 di bëri di am ay combat di livrer ay combat defe naa tey Papa pour man pertutul ci làmb yaa ngi dégg li mu waroon a am ci làmb pour man tey am na ko ci làmb donte des na ko ay combat yu mu war a bëri ndax mu ngi jëm ci ko ak setta quant à mu war a dem nag euh, parcelle bari na ay écrit yoo xam ne bu ko neexee mën na fa intégré Papa Sow it am na xam-xam bu toll tey ci làmb mën na sos écrit bu ko neexee te bu ko sosee itam mën na am euh, ay mbër yoo xam ne dinañ maanaam mën na leen a former parce que am na xam-xam bi waaw maanaam daal fi mu nekk nii moom pour fu mu dem moom du lu ko jaaxal ndax yaakaar naa ne du koo xam ne nii ci làmb dañ ko naan euh, wàcc bees nga ci wala daqaar nga ci lu mu xam la Euh, je naam aussi ni euh, ngi xamal ki nga xam ni mooy Ama Baldé mi ngi waajal bu baax combat ba ak Modou Lo naam combat bi sax le 28 euh, le 26 juillet la maanaam fin de saison moom daal mi ngi waajal nee nañu dina dem France su fa jugee nag dem États-Unis mais day xaar face à face bu jàll ba pare mu soog a dem voyage. loo ci mën a dégg daal bu doon sax 2022 combat boobu ku ko jël booy boo waajal sa bopp. lu leer nañ laa la wax xam nga bi mois de juillet ngay wax ci at mi ku yebu waaj parce que ñoom ñaar seen combat boobu combat la boo xam ne ni li ci laxasoo bëri dañoo bëree mbapat Modou Lo daan ko ca parcelle coow li bëri am na ñu ko nu nu ko nu ko nu ko waa Pikine gise jël booba am na ñoom dañ jàpp ne sax dañ leen a sa kera yaa ngi dégg coow loolu ne ci seen diggante ama def déclaration wax ji bëri na actuellement comme ba taxaw na ku waaju bu bis ba jotee di nga am lu naqari de ku yebu waaj de Général tamit mi ngi xamal ne combat après combat Boy Niang après combat Modou Lo ak ki nga xam ne mooy Ama Baldé ban promoteur nag mooy ñëw sauver ki nga xam ne mooy Boy Niang ak Balla Gaye kan moo leen fas yéene tëgg. waaw parce que ñoom ñaar fi mu nekk nii ñu ngi ci ñu ngi ci waxante ndax Boy Niang moom nee na bu doon Amadou bëri pare na yaa ngi dégg ah kon li des ba des daal na promoteur ñëw Balla itam yaakaar naa ne pare na waaw ana Luc Nicolaï. loolu la sa journal bi sa loolu la laaj nee na ana Luc. fi nu toog nii ana ki moom micro bi ana Thialis. ana Gaston Mbengue ñooñu nañu ñëw nañu génn wax ci loolu bés bu mag la waaw ana ñoom Pa Abdou Fall ay Assane Ndiaye ak Fallou Ndiaye ñoom jiyee seen wax leen ci Balla ak Modou Lo waa ak jam a ah, kenn day jam sama rakk jooju rek moom moo lëkkale ñaari réew yi journal bi tamit nga xam ne ki nga xam ne mooy Baye Mandione daal ñëwaat na si combat bi nga xam ni moom la perte fay ne si Gambie moom nee na xamoon na lii yëpp avant muy bëreek ak xoyantaan nee na dil daal ay dil benn dil la bu Gambie yi tegoon avant muy bëreek seen roi boobu. ah dil day baaxut wala dil bu mu mën a doon na doon dilub jàmm waaye bu dee bii dil la moom du dil bu gën moom dil boo xam ne bi day waaju suuf la ñu dil yàq làmb ja kenn seetaanul nit ñi fay seeni billet su dee noonu la demee day gënul. waaw dëkk ak dëkk nit ñi fay promoteur bi dépensé xaalisam ni amateur yi ñëw fay seen lam ñi jóge Sénégal ñi jóge feneen ah ñu ñëw seetaan si combat bi dil tax combat ba amul bu dee loolu mu wax am na ña def dil ba moom c'est irresponsable defuñu la leen war moom ndax nag promoteur ba la ko waroon def na la ma la ma la wax mbëre la leen waroon def def def nan ko waaye nga dil ba combat bëri wuñ ko moom ah bu demee noonu mbaay ba ñoon loolu gënut Babacar naa dem nag fee si Leewtoo TV Leewtoo TV moom combat bu neex moo amoon démb diggante Abou Ndiassé ak ki nga xam ni mooy Tafa Gueye de combat ba daal finalement arbitre bi kii di Abou Ndiassé moom la jox victoire bi par avertissement ci si kaw Tafa Tafa Gueye. loolu de moo am parce que la fa am mooy démb stade ba dama ne ku réewul da ngaa amul bañ kay waaye démb ku fa ne moom da nga moom yaa xam nga arbitre ba sax da doon ree arbitre ya doon arbitré combat ba sax dañoo mujj song ma sottiwul ba mu génnaate ba nii ma la koy waxe songaatul yaa ngi dégg ba nii ma la koy waxee songaatul de fa lañ ne dem góos des fois mu indi ko ne ko kaay ci góos bi abu topp ko mu tàllal loxo ba taroobe xaa ne ko nii ma ne xam naa xel ma daan ne ca ballon d'or ba mu war a jox saajo Mané ndax xam nga l'espagnol moom yoon moom daal mu ngi noonu def na ay yëfam daal dem ba génn ci waaw abu nag xam naa ne amul lu ko neex ndax la mu bëggoon mooy jàpp ko mais bu ñu nawee tamit si côté bëre bi Tapha Guèye daa nekk mbër moo xam ne nii il technique yaa ngi dégg mbër la bu technique boo xam ne nii abu la mu defit mooy li wóor doo jóg jëm ci koom parce que boo jóg bu jógoon jëm ci koom mën na daje ak moom te bu daje ak moom mën na ko sax jël parce que ku mën a bëre la ko fii dem Tapha Guèye de même boo ko ëppee sut mën a doon di moom di nga xam ne ngay demee ci koom yaa ngi dégg abo it xam na loolu def na li koy euh, coach sam sant xam nga fatt na ko topp ko benn congo am na après bañ ci génnee songaatut ba làmb ja jeex ci avertissement a ah, ñuy masaw tamit amateur parce que bëggoon nañoo gis ab jël la waaw Babacar si kàddu yoon leen tàggoo leen jox dig dig suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mais soo nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu Astande chéri Khadija Dial nuyu Asek chéri Khoudia Seck depuis Italie di ki nga xam ne mooy Mbaye Sey depuis euh, France di nuyu ki nga xam ne mooy Abou Gaye Pape Site euh, Baye Fallou jàmm gan depuis les États-Unis aussi maa ngi koy nuyu di ki nga xam ni mooy Aja Faye madame Nia ak ki nga xam ne mooy euh, euh, ayda Diouf Babacar. noonu lay demee Ndeye Kumba Fall waaye man Ecotra bi ñu doon àndal ci koor gi kan mooy directeur bi. Ablaye Sylla. Ablaye Sylla doo ñëw sponsorisé nu Ecotra ah moo gën a wóor di du ñëw jàpp ci na ñëw jàpp ci combat bi Ablaye Sylla ak waa Ecotra ñu ngi leen di nuyu kaa leen jàpp ci combat bi. wala Thialis ak SMPL du moom moo ko mooy directeur bi kon nañ ñëw jàpp ci combat bi nu ñu ñëpp jaar ñëpp ñaanal ñëpp jàpp ñi commentaire ref yi ñoom leen Basiirou Ndaw ngi nii ah. waaw Amadou Abdoulaye Mbaye Cheikh Bass sama waaja Galas Modou Cissé Ousmane Wade sax gis naa ko fi ñoom ñëpp gaa yaa ngi nii ah. wàdd waa Wade waaw tuuti duñ ko fàtte waaw Kempes duñ ko fàtte doomu yàgg mar ak Dama waaye kenn du saali xulle borom Zik FM maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm di nuyu Cédric Diédhiou mi taxaw Yaggamar ak Momo Mané Aïda Diouf Fleur Thiam képp ku fi ne Fall Fall yaaram taalibe Baye Niass maa ngi koy nuyu di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaye ndongo Fall duma ko fàtte ca itali maa ngi koy bëgg di ko ñaanal jàmm. ba allah.